ba ñu restructurer réformer le secteur j'étais membre du gouvernement du Sénégal ba ñuy capital bi di est principalement au ministre je suis woon gouvernement Je suis bok, a bokk actionnariat parce que j'estimais que c'était un abus j'estimais que c'était des conflits d'intérêts Nous mi fi am yépp xam nañ ko mais mënoo koo faj xam nga Samba Demba Ndiaye jóge na Orange SA 42 du capital la am état 27 23 est flottant 8 est employés. di vous gis nga capital bi tëddee su at mi jeexee bu bénéfice yi noonu flottant Vous ñu wax na ci ñun la nous bokk am baat ci réew mi tekki ci di séddoo xaalis boo xam ne lu ci bari baaxul loolu mooy dëgg moo tax kenn mënu ko la exemple dalal jàmm malheureusement Sonatel la ne jour bu francs ngay fay dama ne boo amee 10 millions d'abonnés ci année bi dafay 10 milliards 600 millions yo savez, ne lañu francs par personne et par jour 10 milliards bobu vous fuñ ko tek ci xale dañ koy jëlé ñaar bi lebal crédit tax nañu condamné bi xam nga lan la suma man personnellement tout de vous francs la nuit c'est les nuits blanches à 300 francs nuit blanche vous xalé nelawatul pour 300 francs il faut moraliser le secteur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 L'autre dit que vous pouvez vous dire, c'est Merci.